maa naaluu bihi acdama almataalibi waldaxaa'ir wa sharaxa bihim alsuduura walquluub wa jacalahum liddiini acwaana wasalaatu wassalaamu ala sayidina wa mawlaana muhammadin alladi min faydi baxrihi yaqtarifuun wa min rawdi mawaahibihi yaqtatifuun wa min nuurihi yastamidduun فهو باب الله العظيم وصراطه المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu seen nanu fas yéene tabaarakallaahu continuer waxtaan wi nga xam ni dooroon nanu ko ci tasawuf tasawuf nag comme niñ leen ko waxee du dara lu dul rekk jàpp xol liggéey ko ba lépp lu ci nekkoon ci ay gàkki gàkki jikko yu bon denc ba set wicc ndax su fekkee loolu amul lu nit ki sawar sawar ci jaamu yàlla di ko def ci waxtu wu ne te fekk xolam a ngi tilim am na malaaka yoo xam ne ñooy rejeté di delloo jaamu googu ndax jaamu ga yàlla du ko nangu ndax jaamu ga bu yéegee ba ci asamaan yi dañ koy delloo ki ko jëfoon te fekk xolam tilim ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ne juróom-ñaari malaakaa ngi ci kaw malaaka mu ne am na lu ko yàlla di seetloo ci xolu jaam bi bu jaam bi jaamoo ba noppi su fekkee nit ki dafa julli ñu yégal julli gi mu dem ba ca kaw ñu gis ne aji julli jooju dey ku bari lu muy jëw la julleem googu du yéeg suñu gisee ne ku rëy la julli ga du yéeg suñu gisee ne kuy njissal la julli ga du yéeg bu fekkee itam ku bëgg daraja la noonu su dee itam kuy naw jëfam noonu juróom-ñaari malaaka yooyu loolu lañuy xool ci xolu jaam bi suñ ci gisee tilim tilimu jikko yooyu su jaam bi wooree walla mu julli wala mu joxe azaka dara du yéeg ci jàmm googu ñu gis ne kon su fekkee ne ci xol bi lañuy xool waaye xooluñ ci jëf ji ak melokaan bi ndax suñu boroom subhaanahu wa taala yonent bi mu ngi xamal ni xoolul suñu jëf yii ak suñu jëm yi xol bi rekk lay xool su fekkee ne gis na ne xol yi set na lu ñu ko liggéeyal lu mu tuuti tuuti dana ko nangu te dana ko rëyal su fekkente ne nag xol yi dafa tilim lu liggéeya rëy rëy rëy du ca nangu dara moo tax nag mag ñi daal di ubbi daara yoo xam ne seen liggéey nekkul ca daara yooyu lu dul tarbiye nit ki ba mën a setal xolom boobu ndax kat suñ boroom subhaanahu wa jàkk yi ñu tabax moo ko moom waaye nag bu dee ne am na fu mën a fanaan ci xolu nit lay fanaan su fekkee xol ba wéet na ci mbooleem tilim tilim yi su fekkente ne itam xol ba wéet na ci boroom di ca dugal keneen ku yàlla ndax suñ boroom dafa fiir te lépp loo xam ne jël nga ko boole ko ko ak keneen moom dana doyloo boppam bàyyi la ak loola nga xamante ni tabaarakallaahu moom nga tànn suñ boroom subhanahu wa taala su yórndoo xolu jaam bi gis ne xol ba set na amul benn gàkki-gàkki jikko yu bon mu gis ne itam boroom am na tawxiit bu wér boo xam ne dugalu fa sëriñ dugalu fa jabar dugalu fa doom dugalu fa alal wéetal na xol ba ngir dëkkal fa yàlla su boobaa nag suñ boroom subhanahu wa taala bu duggee ca xol booba boroom xol boobu la chàkk sikk nekkul ci ne moom la ñuy tuddee waliyu yàlla moo tax nag tasawuf bëgg nag képp koo xam ne tarbiya na la moom tasawuf résultat mooy def la nga bokk ci awliyaullah yi moo tax tabarakallahu euh, soo demee ñu lay wax ne la tasawuf la ci jiitu comme niñ ko waxee ci waxtaan wi weesu ne la cosaan yi mooy téere yàlla bi roy yonent bi lekk lu lew moytu bàkkaar yi bañ a lor benn doomu aadama boo xam ne doo ko lor ci sa làmmiñ doo ko lor itam tabaarakallaahu euh, ci sa loxo ak itam sàmm àq yi dox sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg nit ñi tuub nag jëm ci sa boroom bàyyi lépp loo xam ne ak mooy la woon tabaarakallaahu rëccu ko ba dootoo ca bëggatee dellu mu mel ni bu ngeen gisee nit ñi E dem ba seeni xol yàqu xol bàkkaar a koy yàq bàkkaar mooy yàq xol day dem ba su bàkkaar yàqee xol nit ki dafay daldi nekk nag ku ñemee def bàkkaar ak lu bàkkaar rëy rëy dana ko def te du yëg ne li mu def lu rëy la moo tax tasawuf di liggéey pour rekk nit ki dem ba nga xamante ni dootul sañate def bàkkaar ndax ragal gu muy ragal boroomam xam ni bëtu yàlla bi teggeekuwul ci moom benn yoon fépp fu mu nekk doonte dafa wéet dana xam ne wéet na ci nit ñi waaye wéetul ci digganteem ak boroomam ndax yàlla ngi gis léppam su ko defee nag muy am xorma ci digganteem ak boroomam tabaarakallaahu ba la mu sañul woon a def ci digganteem ak nit du ko saña def itam ci digganteem ak boromam ndax xorma ak kersa buy dox ci digganteem ak boromam subhanahu wa mu mel ni euh, bu ngeen gisee yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne juróom benni euh, jikkoo ngi nii yoo xam ne dafay tax jëfi doomu aadama bi du yéeg ndax boo ci amee benn ci jikko yi rekk loo defoon sa digganteeg sa boroom day wàcc wante du jëm kaw bi ci njëkk mooy al ishtigaalu bi uyubil xalq mooy fàtte sa ayibi bopp di yittewoo ayibi nit ñi waaw am na ñu mel noonu ci nit ñi ñoo xam ne ah, ñoom daal la sëñ Babacar si daan wax rek ni léeg-léeg nga gis ku yàq tubayam di rey ku rëccule waaw tabaarakallaahu nit ñi noonu la ñu mel dañuy fàtte la ñu def mu ne weng su ko defee nag di tudd lu keneen def kon nag képp koo xam ne loolu moom mooy sa jikko waaw mooy sa jikko képp koo xam ne loolu moom mooy sa jikko na la leer ne sa julli yéegul julli gu wàcc la goo xam ne yàlla nangu ko kon nag li jiitu ci juróom benn jikko yooyu yonent bi wax mooy yittewoo ay bi nit ñi waaw yittewoo ay nit ñi dañuy wax ne boo joxoñee nit benn baaraam ne ko yàbboon fekk na bank nga ñetti baaraam yoo xam ne yaa ngi ko joxoñ sa bopp lu la baaraam ya di wax yaa ko gën a bon yaa ko gën a bon yaa ko gën a bon ba muy ñetti yoon kon nag euh, li ñuy wax ni sàcc moom mbooloo moo koy dàq bu yàlla wuñ wuññi woon suutura ñooñu di ko dàq moom sàcc bi dana mujj ne di leen dàq ndax kon ndeke sàccay dàq moroomu sàccam kon nag euh, yow doomu aadama ay bi kese nga soo demee ba nar a tudd ayibi jàmbur nee na na nga doyloo sa ayibi bopp su ko defee loolu eh, nekk ak jaamu yàlla ci yow loolu itam nekk jikko bu rafet boo xam ne eh, dana la musal ci ngay melowoo jikko bi nga xam ne dafay wàcce sa jëf ba sa jëf du mën a yéeg ba ca toog mooy tuulul amal tuulul amal mooy gudd mébét dund ci àdduna bañ a gàttal sa mébét lu ne nga ne danga ko am lu ne nga ne danga ko am waaw lu ne danga ko am danga gis koo xam ne dem na ba laqaat yu bari waaye rek bis bu ne rek mu ngi foog ne daal dara rëcc ko waaw su ko defee di wut bay mel ni tabaarakallaahu xale bu toll ci ñaar fukki ñaar fukki atam di soog a dugg ci àdduna di soog a gimmi moom ak mag moomu nga xam ne làq na juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at ñoo yem bëgg-bëgg ñoo yem yitte tuulul amal googu nag su fekkee dem na ba nekk jikko ci yow nga xam ne dangaa toog ci àdduna di mébét rek waaw di mébét rekk di mébét rek waaw eh, eh, xëy na kat dana am nangam xëy na dana am nangam xëy na kat dana am nangam topp loolu topp loolu topp loolu ba taluloo jaamu sa boroom taluloo tabaarakallaahu eh, denc ci sa bàmmeel dara loolu itam dana tax boo jullee julli ga du yéeg soo wooree woor ga du yéeg kon doomaadama daal dafa war a gàttal mébétam waaw gàttal mébétam eh, bàyyi yàlla léppam su ko defee nag yëngatu mënul ñàkk naam waaye rek nga bañ a ëppal ci di mébét rek lu ne nga bëgg koo am lu ne nga bëgg ko am déedéet waaw tuulul amal baaxul jikko la boo xam ne bu xasee nekk ci yow boo jaamoo yàlla jaamoo ga du yéeg ba ci topp itam mooy xillatul xayaa yi muy néew kersa moo ko ñetteel néew kersa boo demee ba amatuloo kersa amatuloo kersa ci wax waaw amatuloo kersa ci jëf tabaarakallaahu léegi nag bari na lool ci média yi waaw tabaarakalla bari lool ci média yi Eh, ñuy def théâtre eh, néew na ñu ci am kersa te tabaarakallaahu xamuñu ne yàlla ngi leen di seetaan xamuñu itam ay kilifa leen di seetaan ñu ci télé yi itam noonu eh, bàyyi xel tabaarakallaahu ñi lay seetaan te nekk ay kilifa daf ci am solo waaw su ko defee ñuy yar kàddu yi ci wax yar geste yi ci jëf tabaarakallaahu loolu itam am na solo lool am na solo lool eh, bi ci des itam eh, boo nekkee ci sa biir néeg wéet sax war nga am kersa sa diggante ak sa boroom rawatina soo nekkee ci sa biir njaboot nekk ci ëtt bi rawatina boo génnee nekk ci mbedd mi nga am kersa ci ñi nga bokkal mbedd mi am kersa ci ñi nga bokkal pénc mi ci sa wax ak sa jëf daf ci am solo su ko defee nag boo demee nag ba nga xam ne ñàkk nga kersa waaw lu la neex def lu la neex wax te doo ca rafetal dara doo ca yëwal dara doo ca ormal dara ñàkk kersa googu dana tax boo jullee yàlla du nangu ndax yàlla dafa bëgg kersa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal wax ne kersa kat branche la ci ngëm branche la ci ngëm kon ku damm branche boobu sànni ko na la leer ne garabu ngëm nee na wàññi nga ci lu rëy rëy rëy rëy tabarakallahu bi ko ñeenteel moo di ak tooñ képp koo xam ne si jikko jikko tooñ la di tooñ nit ñi tabarakallahu tooñ baaxul suñ borom subhanahu wa taala nee na man day araamal naa tooñ sama diggante ak yéen li ma leen di bind bind moom leen am sañ-sañ te la xujja illa li xaaliqil xujja su ma leen tooñan sax bu ma layoog yéen yey leen ndax maa leen bind waaw tabarkàlla maa leen moom ah, li may am pouvoir boobu yépp taxul nag ma tooñ leen duma leen tooñ mukk ndax xaraamal naa ko ci sama bopp waaw suñ borom subhanahu wa taala wax na ne inna allaha laa yadlimu mithqaala darratin wa in taku xasanatan yudaacifaha wa yuuti min ladunhu ajran azima suratu nisa moom ñu nga xamal ne moom suñ boroom subhanahu wa taala nee na du tooñ doomu aadama bi nee na doonte lu tol ni atom la nee na du ko wàññi ci ak mukk waaw mukk mukk mukk mukk na yomal xiyaam daal kenn ku ne la nga jëf moom la lay jox te du ca wàññi dara waaw kon nag képp koo xam ne tabaarakallaahu eh, yaa ngi dund ak say mbokki jullit walla say dëkkandoo nanga nga fexe ba moytu di leen tooñ bul wàññi seen xorma bul wàññi ci seen ak dara tabarakallahu kenn ku ne euh, lay euh, la mu am ci yow jox ko ko te bu ca wàññi dara ndax suñ borom subhanahu wa taala euh, loolu la jëflanteek ñun te itam loolu la ñu digal mu ngi xamal ni itam ne ëllëg yowmal xiyaam nee na maandu rek lay doxal ak ñun wa nadau almawasina alqista li yowmi alqiyaama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kaana mithla wa min xardalin ataynaa biha wa kafa bina xaasibin aaya 47 anbiya suñ boroom subhanahu wa taala nee na ngi ñëw daañu teg balance yi pour atte jaam yi nee balance yooyu nag nee na balance yu maandu la yoo xam ni du la wàññil yow nit ki dara ci sa àq loo xam ne dana la ko xañ doonte tuute na ne atom nee na du ko ca wàññi kon suñ borom subhanahu wa taala mu ngi xamal ak maandu ci suñu diggante bañ itam di tooñante eh, mu ngi xamalaat itam ne al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna allaha sari'ul ba tey aaya boobu itam mu ngi xamal ne yowmal xiyaam nee na suñu boroom subhaanahu wa taala dana wax ne bis bii day bakkan bu ne daañu ko fay la mu doon jëf te duñ ca wàññi dara te suñu boroom itam ku gaaw ci ni muy régler <coughs> jaamam yi la ci bis boobu boobule kon suñ boroom ak ñuy xamal ne wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura mu ngi xamal ne nit ki daal la mu jëf rek la am nee na itam te lépp lu mu jëf ëllëg yomal xiyaam muy lu baax wala muy lu bon nee na dana ca teg bëtam daañu ko jox kon eh, li nu bëgg mooy ñàkk tooñ googu nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala melowoo na ko digal ñu itam ñu melowoo ko mu ñuy moytandikuloo tooñ bokk na ci résultat yi nga xam ne tooñ dana ko jur mooy boo demee ba nekk tooñkat di tooñ sa dëkkandoo wala ngay tooñ sa mbokku jullit lam lay jural mooy boo jullee yàlla du ko nangu boo wooree yàlla du ko nangu moo tax bëri na jaamukatu yàlla bu ñuy joxoñ fekk yàlla nangu lu ko dara ndax mm, tooñ gu muy tooñ ay dëkkandoom wala toom bu tooñ bu muy tooñ soxnaam wala toom bu tooñ bu muy tooñ ay doomam wala tooñ bu muy tooñ wuy juram wala tooñ bu muy tooñ tabarakallahu e, e, e nit ñi waaw ndax tooñ baaxul ba ci ki nga bokkulul diine sax mu di ab yéeféer moytu ko tooñ ndax tooñ baaxul az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama ñu bokk na ci jikko yi nga xam ne day tax jëfi doomu aadama bi du yéeg lu ñuy tuddee xaswatul qalbi mooy ñàkk yërmande waaw ñàkk yërmande xol bu bon xol bu bon ñàkk yërmande tabaarakallaahu fan yii eh, am na xew-xew boo xam ne ba léegi wax dëgg yàlla eh, góom la def ci xol yi muy naqar boo xam ne sori na lool ci xol yi tabaarakallaahu ci soxna soosu nga xam ne faat nanu ko faat bu ñaaw tabaarakallaahu faat bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw eh, moom tabaarakallaahu eh, soxna suusu yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal te yal na ko yàlla dëkkal ca àjjanay firdaws bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax eh, kii nga xam ne boom na ko def na lu ñaaw tooñ na ko benn bi ci des itam ñàkk na yërmande bi ci des itam warkat la waaw ku ñàkk wëllëre la ndax nit ku la embauché tabaarakallaahu eh, jële la ci chômage nga mën tabaarakallaahu eh, jëflanteeg moom jëf ju ñaaw ji loolu moo lay wan ne ñu ngi ci aaxiru zamaan ñu ngi ci aaxiru zamaan mu jub jamono yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne balaa àdduna tukki rey dafay bari rey dafay bari waxoon na ko nee na daa ngeen dem ba gis koo xam ne dafay rey te du xam lu tax mu rey waaw nee na ki ñu rey itam bu ñu ko laajoon du xam lu tax ñu rey ko waaw loolu lépp ci màndargay tabaarakallaahu bis penc yi la àdduna bi nag léegi dafa tëdde noo xamante ni bëgg àdduna tax na nit sañ def lu ne ci ay musiba waaw bëgg àdduna tax na nit sañ a def lu ne ci ay musiba parce que dañu jël alal jiital ko ci lépp waaw bëgg a tekki tabaarakallaahu bëgg tekki am am bu gaaw te am na am am goo xamante ni amul solo ndax mbarire barkel le moom moo ko gën ba tax na ni société bi bindoo nga xam ne nit ñi lépp alal leen ca jiital te bu njëkk danga daan gis wax dëgg yàlla kiy jàngale bëgg ñi muy jàngal xam rekk moo ko tax di jàngale waaye alal taxuloon muy jàngale waaye léegi jàngale jàngalekat yépp alal daanaka moo leen tax di jàngale moo tax grève yi bari waaw bu njëkk ba néew na nga gis professeur walla ay enseignant yuy grève waaw ndax wax dëgg yàlla njàngale mi jiitaluñ ci woon alal dañ ca bëggoon rekk mooy jàpp ci société bi ba ñépp xam boo toppee secteur yu bari loolu nga fay gis ba ci po mi da daan gis mbëru làmb boo xam ne dëgg yàlla eh, bëgg bëre rek moo ko daan tax di bëre waaye daanaka wut ci woon alal waaye léegi gis nga eh, làmb ji daanaka léegi alal rek la ci nit ñi di wut kenn ku ne eh, da ngay bëre E ngir alal ji nga ca dégg kon société la boo xamante ni suñ société daanaka societé alal la dañoo jiital alal ci lépp e, danga daan gis itam médecin boo xam ne e, faj gi muy faj bëgg-bëggam moo doon ku mu faj rek nga wér mu bëgg métier bi lool bëgg ci ndam lool tabaarakallaahu waaye dem neen ba léegi médecin yëpp daanaka. alal la ñuy wut léegi ci mecc mi waaye wutatuñ ci mérite wutatuñ ci ndam tabaarakallaahu moo tax ah, ngeen gis wow xol gi nga xamante ni xamuñu ko woon ci médecin yi léegi ngeen gis ko ngiruk alal alal jooju nag tey mooy li nga xamante ni tey mooy yàlla ju ñuy jaamu mooy yàlla ji ñuy jaamu bu njëkk ba itam sëriñ bi da daan gindi nit ñi rek te yàlla tax waaw gindi nit ñi te yàlla tax soxlawul ci ñoom dërëm waaye léegi taar daanaka sëriñ si soxlaatuñu taalibe eh, bu amul dara lu nu bëgg rek mooy taalibe boo xam ne tabaarakallaahu ah, ministre la wala député la ah, wala grand commerçant la tabaarakallaahu wala homme d'affaires la ah, ngir ñuy mën a am ci moom dara société nag bu demee ba bindoo noonu nga xam ne dañu jël alal jiital ko ci lépp mooy waral yenn crime yi di am waaw mooy yenn crime yi di am su ko defee nag eh, mag ñi ubbi woon nañu école tasawuf ngir jàjj xol yi ngir defal xol yi ngir setal xol yi daanaka nag liggéey bi mu ngi soog a am njariñ fii ci suñ jamono leen ko soxlaa li ñu bëgg mooy nit ñi defaraat daara yi tarbiyaat nit ñi yeesalaat njàngale mag ñi ngir mën a defar xol yi ndax xol yi yàqu na xol yi yàqu na ci bëgg àdduna te bëgg àdduna itam mooy daanaka bopp euh, musiba yi bopp musiba yi yépp mu ngi ci bëgg àdduna woykat ba dafa wax ni an nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna saadata fiha tarku ma fiha mhm. la daara lilmari bacda almawti yaskunuha illa allati kaana qabla almawti baaniha fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuhu wa in banaaha bi charrin xaaba baaniha amwaaluna li dawi lmiiraathi najmacuha wa duuruna li xaraabi dëhri nabniha mu ne an nafsu bakkan bi day tabkii mu ngay jooy ala duniyaa ci àdduna nee bakkan daal mu ngi jooy àdduna ak poñetam àdduna di ko wut rekk di ko wute nu waaw tabaarkalla di ko wute nu ne ba jaral na ko faat bakkan pour rek am àdduna waaw ñu faatee soxna su baax si tabaarakallaahu fatimatu maxtaar njaay yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko tabaarakallaahu yal na ko yàlla dëkkal ci àjjanay firdaws allahuma ijal qabraha rawdatan min riyaadil janna suñ boroom yàlla nga def bàmmeelam ba moo di jardin ci jardin àjjana yi bi jaay saydil wujud kii ko fàdde def na lu ñaaw tabaarakallaahu def na lu ñaaw def na lu bon def na loo xam ne naqari na jullit ñëpp raq naqari na réew mépp tabaarakallaahu dara waralu ko nag lu dul bëgg àdduna topp alal ak poñetum àdduna rek moo ko waral ndax bëgg àdduna moom mooy boppu ñaawteef yi moo tax waykat ba ne an tabki bakkan baa ngay jooy ala duniyaa ci àdduna waxad alima te xam na ne ann sacaadata nee na niki texe fiihaa ci àdduna nee boo bëggee am bonheur ci àdduna bëgg texe ci àdduna nee na tarku ma fiihaa nee na lu nekk ci biir àdduna nee na looloy tax nga am bonheur waaw waaye boo bëggee àdduna nag ci ay musiba rek ngay dugg waaw ci ay musiba rek ngay dugg soo demee tey ci prison yi ci kaso yi daanaka ñu bari ñoo fa gis ñu tëdd àddunaa leen fa dugal tabarkalla àddunaa leen fa dugal waaw waaye ñiy wut yàlla ñoom bu ñu tabarakallahu tëddee rek nelaw waaw ndax ñoom dong ñoo am bonheur waaw ñoom dong ñoo ko am tabarkalla moo tax woykat ba wax na ne ma laddatul ayshi illa soxbatul fuqara wa humu wa saadaatu wal umara fuqaraaw yooyu nag moom la ñu soxla ci jamono bii nee na ma laddatul ayshi déet neexaayu dund nekkul illa soxbatul fuqara lu dul ànd ak gaañ nga xamante ni yàlla lañuy wut te soxla ko di ko wut nag ca wut ba gën te jaar yoon waaw nga xam ne wéetal nañu seen xol ci lépp luy bëgg àdduna sànni tindi nañ ci seen xol lépp loo xam ne tilim tilimu jikko la ak i gàkk sànni jël yàlla dugal fa nag di taxamtiku yàlla yëg yàlla lool ci seen xol waaw ku ñuy àndal yàllaay tax ku ñuy jàpp yàllaay tax ku ñuy jaxasool yàllaay tax foo leen gis seen tànk tegu fa yàllaa tax fu ñu teg seen bët yàllaa tax waaw ñooñu nag ñoo am bonheur waaw ñoo ñoo texe waaw nee na boo bëggee nag am texe nee na del ànd ak fuqaraawu yooyu waaye boo àndee nag ñi bëgg àdduna muy politiciens yi tabaarakallaahu ak ñi mel ni ñoom tabaarakallaahu su boobaa nag yaa ngi ci musiba boo xamante ni lu ne mën na la caa dal waaw moo tax mu ne an nafsu bakkan bi day tab ki mu ngay jooy ala dunia ci àdduna waaw bëgg àdduna bëgg na lu fi tabax bu baax mu dellu ci tuulul amal ñu doon wax waaw bëgg am kër gu baax am jabar ju rafet am oto bu rafet am doom yoo tabarkalla yu tekki waaw lu ne nga bëgg koo am nee na loolu ay fitnay kese la ay coonay kese la ay angoissu kese la waaw nee na nag soo bëggee nag am bonheur ci àdduna nee na fokk nag nga bàyyi àdduna ak lépp lu nekk ci biir mu ne laa daara déet kër lil mar i ñeel nit ki yeskunuha boo xam ne dana ko dëkke baadal mawti gannaaw bu génnee àdduna illa lati lu dul kër ga nga xam ne kaana nekkoon na qablal mawti lu njëkk muy faatu baaniha doon ko tabax gis nga fu ne nii ñu ngi dund waaye ci ni ñuy dundee noonu lañuy ñuy tabaxee suñuy kër képp koo xam ne li ngay def ci sa dund lépp lu baax la yaa ngi tabax kër gu ñuy wax aljanna képp koo xam ni li ngay def ci sa dund lépp lu bon la yaa ngi tabax kër gu ñuy wax safara kon nag te kër googu boo ca xasee dugg jeex na dootoo ca génnati ilal abad waaw dootoo ca génnati ilal abad kër googu nga xamante ni nag moom mooy safara wala muy àjjana kenn kenn ku ci nekk fii ci àdduna yaa ngi dund di ko tabax te yëguloo ko ñiy def lu baax ñépp àjjana la ñu tabax ñiy def lu bon ñépp safara la ñu tabax kon nag kenn ku ne nag selon la ngay def la ngay jëf moo lay wan fa nga jëm tabaarakallah moo lay wan nga jëm moo tax mu ne fa in banaaha bu fekkee tabax na kër googule bi xayrin ci lu baax rekk lu mu doon def fii ci àdduna mu ne bu boobaa nag taaba dana neex lool maskanuhu dëkkuwaayam ëllëg wa in banaaha bu fekkee da doon tabax kër ga nag bi charrin ci ay waaw ci sàcc ci fen ci ray waaw comme ni ko Samba saw defee waaw Samba Sow mii ni mu boomee soxna si rey ko rey bu ñaaw rey ko ci wor tabarakallah wor waaw wor ndeysaan eh, eh, xawma eh, nu nit mën a nekk nit mu lay jëriñ ci wër wërsëgam embauché la tabaarakallaahu sa dëkkandoo sax boo xam dañ ni yàlla lépp loo xamante ni Euh, mu ngi ci kaw suuf daanaka bu yàqoo nit ñi mën nañ ko defaraat waaw ba mu des bakkan waaw bakkan moom bu ñu ko xasee faat jeex na ndax yàlla rek defar bakkan moo tax ku rey benn nit mel na ni rey na nit ñépp kaaba gi li muy rëy rëy rëy rëy ak li muy màgg màgg màgg tey bu ñu ko tojoon ba mu raase dañ koy tabaxaat rek ndax ay nit a ko tabaxoon waaw waaye ki gën a tuuti ci nit ñi gën a xeebu ci nit ñi bu ñu ko reyoon kenn mënta indiwaat bakkan bi lu tax ndax kaaba gi jëfi nit la waaye bakkan bi jëfi yàlla moo tax suñ borom subhaanahu wa taala wax ci alquran ni ku rey jullit tey ko safara nga jëm man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam texte bu leer la ku rey jullit tey ko safara nga jëm safara nga jëm yal nañu yàlla musal ci faat bakkan yal nañu ci yàlla musal rawatina nag bakkan bu naan laa ilaha illallah nga faat ko yow mi ko faat la chaque sikk nekkul ci ne safara nga jëm peine de bii ñuy wax nga xam ne nit ñaa ngi ciy wax suñ boroom moo wax ne e, bakkan bakkan bakkan a koy faj moo koy fay hmm? bakkan bakkan a koy fay képp koo xam ne rey nga dañu la war a rey loolu alquran la soo buddee bañu nit dañoo war a bujj buddi sa bëñ boo fuqee bëtam ñu fuqi sa bët waaw wal jur qisaas su fekkee danga koy jam nag ñu natt jam-jam ba na mu toll ñu jam la lu toll noonu kon nag su ma gisee jullit bu naan peine de jaaduwul damay jàpp ne kii day ak njullitam des na sañu ma wax ne yéefar la waaye dama naan am njullitam des na ndax kenn warul weddi lu yàlla wax moo tax du yar du teggin nga def loo xam ne sharia da koo tere def ga def ga tax nga bëgg koo daganal masalan damay naan sàngara lu lu lu bu ma demee ba ñëpp xam ne damay naan sàngara itam te ma dib jullit naa wax ne ay la yéwén day maa ngi koy naan waaye dafa xaraam maa ngi koy naan waaye dafa xaraam ndax li Seyd Cheikh Ahmad Tijani radiallahu taala anhu wax ci tasawuf biñ ko ko laajee daf ne jëfee li la yàlla digal bàyyi li mu la tere ci ni mu bëgge moom yàlla waaye bu ko def yow ni nga bëgge loolu mooy tasawuf loolu itam mooy diine jullit bu am diine masala bu ne daf caa war a laaj lu ca yàlla wax su fekkee la ca yàlla wax dafa wuuteeg la mu doon bëgg na dellu si moom soppi bëgg-bëggam bëgg la yàlla bëgg parce que loolu mooy wéral ak njullitam waaye bu fekkente ni yow li yàlla bëgg danga bëgg leneen ba fi li yàlla bëgg sa njullite des na moo tax doo gis ku jàng mukk nga xam ne jàng na sharia néew na wala boog man de gisaguma ko ci ñi jàng même bu fekkent ne maa ngi dégg ku ñuy laaj ci télé bi walla ci rajo bi ñaare kay wax géejuwul ci diine ba mën a xam la ca yàlla wax looloo tax mu wax ne peine de mort day jaadul yoon waaye peine alquran moo ko digle waaw alquran moo ko digle képp koo xam ne danga rey bakkan dañu la war a rey waaw kon nag su fekkente ni eh, danga nga di jullit bëgg weddi loolu alquran nga weddi texte bu wér ci alquran nga weddi waaw te itam nag suñ boroom nee na su fekkee bëgg ngeen a dund ci sécurité nee na na ngeen fexe ba lii ma tëral nee na ngeen tëral ko yoonal ko te jàpp ci ndax mooy tax ngeen am sécurité ndax bëri na koo xam ne tey su fekkoonte ne peine am na du rey ndax xalaat ne bu reyee ñu rey ko dana tax mu bañ a rey du ñu wax nag ne mën na fi dindi rey mukk ndax ba lislaam dee lislaam nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa eh, lislaam wàcc na ci moom mu jóge fi Seydina Abu Bakar nekk fi ba jóge fi ki remplacé Seydina Abu Bakar di Seydina Omar radiyallahu anhu gis ngeen ne dañu ko rey te ki ko reyoon xam na ni ku rey nit dañ la war rey hmm? segam ca maas gu njëkk ga dund na ko yonent bi muy saxaaba yi ñoom ci seen bopp li luwaa bi di am am yépp taxul woon pen taxul woon peine boobu dindi fi ak rey waaye nag dana seral xolu mbokk yi ñu reyal waaw xolu mbokk yi ñu reyal ndax mooy atte bi maandu te bu fekkee tribunal bi dafa atte atte bu maandu dana seral dana satisfaire ñi nga xamante ni dañ leen a tooñ moo tax yonent bi ne unsur axaaka valiman aw mazluman dimbalil sa mbokk su fekkee dafa tooñ wala ñu tooñ ko kon nag ki nga xamante ni dañu ko reyal reyuk tay su fekkee dimbali nañ ko ci rey ki rey loola dimbali nañ ki tooñ ndax xam na ni eh, ah mbokkam dem na waaye nag ki def caay-caay gi moom itam mucc ca kon duñ ne peine du solution parce que réew yi ko tëral sax ñoom eh, taxul mu jóg fa lislaam jubluwu ci mu jóg fa feeg àddunaa ngi am doomu aadama di rey moroomam waaye nag luwaa bi yàlla tëral mooy ku rey nen la rey loolu mooy luwaa yàlla te loolu itam moo gën a maandu te lu lu itam mooy li jaadu su fekkee ki rey moom xam na ne rey jaaduwul mu rey kon nag moom xam na ne bu ñu ko reyee itam jaadu na mooy atte bi maandu boo xamante ni képp ku ko bañ seytaane ànd ak yow képp ku ko bëgg nag yàlla moo ànd ak yow bëgg nga li yàlla bëgg waaw moo tax peine de mort euh, euh, rey euh, ñu rey la dindi wu fi rey ndax rey nay Seydina Omar ibnul Xataab te boobu lislaam a ngi dox ñuy àtte ku rey ñu rey la ñu rey Seydina Ousmane mi toppoon ci ginnaawam rey Seydina Ali mi toppoon ci ginnaawam rey Seydina Xusayn rey gi moom mënu fi jóg waaye nag yàlla moom li mu santaane mooy ko rey rek nen la rey moom mi ko santaane nag dëgg yàlla santaane na lu logique loo xam ne xel nangu na ko xel nangu na ko kon nag képp kuy jullit na ngay moytu di wax lu wuuteeg li yàlla wax ab jullit dafa war di wax li yàlla wax